Assalamualaikum, assalamualaikum mbokki julit mbokki talibé yi di ñaanal Serigne Mountakha mbake xalif général kulli mourid yalla na fi yàgg te ànd ak wër xalif général des Baye Fall yalla na fi yàgg te ak wër di ñaan nak magal gi ñu jëm yalla nañ ci yalla si jamm ak salam yalla may ñu xéewal ak traga juñ fa yobbo yalla dafal ñu jamm dafal ko ñëpp yoon wi na fi jamm rek di xew aller retour aller retour jamm rek ba ba magal ci gi jeex ah di ñaan nak sama mbokki sa nan wàññiwaat paas yi ba mu gën a woyof dëkk bi neexul gën leen a wàññi te ñëpp bëgg a dem Touba wàññi leen paas yi loolu rek jaamu yàlla la. sàcc si tamit dëgg yàlla bu ngeen ko mënee bàyyi dinañu arrangé dëkk bu neexul ndox yor paas aller retour ak sa addiya ñu ne ko foofee nga jombi loolu tas yaakaar la sàcc si yéen tamit pause leen bu màgg jotee pause leen ngir yàlla bu ngeen ko mënta baax jàpp leen te yàlla tax dañoo bëgg a màggali yàlla na yàlla defal jàmm yéen sàcc si yàlla na leen yàlla soppi safoor si yéen tamit seet leen ci yàlla wàññi paas yi